tax a jóg mooy dañ ko déposé contre ku ñuy wax Mamadou Lamine Massaly muy acteur politique nekk fii ci Thiès parce que dañu constaté que ni depuis mars 2021 lu ëpp juróom benn fukk doomu Sénégal ay xale rey nañ leen ci manifestation yi par ay balles réelles donc suñu gisee à Thiès à chaque manifestation la même personne muy Mamadou Lamine Massaly ci fan yële ñu génn gis nañ bi xale yi di manifesté wu mu ànd ak ay nervi yor benn pick bu weex jàpp ay xale teg leen ci kaw pick bi di leen mbéj di leen saaga yor fitalam Sénégal ñëpp teg ci seen bët te benn poursuite dara fekku ko ci ñu gis ajuma xale yi di manifesté waat mu juge këram jël pistolem songu xale yi ñu filmer ko te dara dara fekku ko ci ñu ni nag lii bu ñu ci jugul dina ëpp ay parce que bëgguñu nekk ci réew moo xam ni réewu fayantoo la parce que pistolet bu dee yor pistolet ñoo ko gën a yor pistolet ñoo ko ko gën a guddule ñoo ko ko gën a rëyle